الله أكبر الله أكبر الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه ايها المسلمون mbokki jullit yi noo ngi sant yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo def yonent yàlla muhammad muy yilimaani mboolem ñi ragal yàlla di jullee ka salman ca sunu sang bu tedd ba sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy royu waayu gaañu baax ña mbokki jullit yi yàlla day daf noo bind ngir ñu jaamu ko jaamu gi nga xamante ne nag moom lañ koy jaamu mënuñu koo def te amuñu xam-xam te xam-xam nag kenn mënu koo am te jàngoo loolu du saay wax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ko wax ci xadis boo xam ne dafa tënk xam-xam ne jàng doom maa koy joxe innama al bi taallum xam-xam daal jàng doom ma koy joxe kon foofa loo fay déggee xam-xam du aw sant ngay am wuy tax nga am xam-xam du am dëkk booy dëkk ngir nga am xam-xam du lakk woy lakk ngir nga am xam-xam du der booy am ngir nga am xam-xam xam-xam jàng doom ma koy joxe kon ku bëgg xam-xam laa budda nga dem jàng comme munoo jaamu yàlla di tax yàlla bind la te amoo xam-xam te xam-xam munoo koo am te jàngoo kon da war a jàngi jàng nag kenn mënu koo defal sa bopp faw nga am ab sëriñ bu jàpp ci sa loxo boo xam ne moom jàng na ndax xam-xam kenn mënu ko am te jàngul sëriñ bi kon faw mu jàng ba xam li yàlla santaane ak li yàlla tere mu sax ci li yàlla santaane seexlu wan gannaaw la yàlla tere sëriñ boobu mooy jàpp ci sa loxo ne kaay def ni ma def ma xamal la li nga xam ne man jàng naa ba xam ko ma jàngal la nga jàng ko yow it ba xam ko boo ko xamee ba noppi ngir nga mën a jëfe comme ni ma jëfee ñun ñaar ñoo ànd jëfe foofu nag la rawante bi nekk bu boobaa sëriñ bi bu sàgganee sax yow boo ko gënee farlu ci jëfe yaa koy raw kon nii la mbir yi war a tëddee buntu bii nag mbokki jullit yi dañ koo war di waxtaane ndax bari na ay njuumte yoo xam ne ñu bari ci jullit ñi ñu ngi ciy tàbbi te li ko waral mooy juum gu ñuy juum ci bunt bii dafa am nit ñoo xam ne dañ ne ah, xam-xam moom ku ne mën na koo fàggul sa bopp jërul may dem ci ab sëriñ mu may tëralal wala mu may xamal naan la lii la yàlla bëgg lii la yàlla bañ jarul man maay dem ngir fàggul ko saa bopp loolu ku ko def da nga fent yoonu réer wu rëy ndax mën a waaxu xam yoon wa moo ko gën xam yoon wi nag mooy nga xam ni lii la yàlla digle lii la yàlla tere nga sax ci ndigal bàyyi tere te loolu faw ñu xamal la ko ndax nit du juddu rek doon borom xam-xam am geneen kuréel goo xam ne ñoom dañu dañuy ëppal ci borom xam yi ak sëriñ yi leen di jàngal dañuy ëppal ci ñoom teg leen foo xamante ne weesu na fa nga xamante ne fa lañu mooy seen wàccuwaay dañ leen di jàppe ñoo xam ne duñ juum lu ñu wax noonu la luñ leen rëddal duñ xalaat dañ koy daal di jëfee même boo leen indiloon laaya alxuraan dañu naan la déedéet comme que man boroom xam-xam bi may dellu nee na lii rek loolee la du ma geesu la yàlla wax du ma geesu la yonante wax ñooñu dañoo ëppal duñu ñu xool it ndax ci ki ñuy dellu kooku jàng na ba xam li yàlla bëgg ak li yàlla bañ ngir mu man leen a yar ci jëfee ndigal yar leen ci bàyyi tere duñ xool loolu waaye dañuy xool ne kii saa dëkk la dëkk walla sant sàngam la yor wala der bi dafa ñuul wala dafa weex wala làkk sàngam lay làkk ci noonu rek lañuy delloo ci boroom xam-xam mbokk yi loolu njuumte la ki ñuy dellu ci ñoom borom xam-xam rek la war a doon boo xam ne xam na alquran am kuréelu ñetteel boo xam ne nag ñoo ñoo nekk ca yoon wu jub wa mooy ñi nga xam ne ñoom xam nañ ne faaw ñu jàng ngir xam li yàlla diglee ak yonentam ak li ñu tere ngir ñu mën a sax ci ndigal bàyyi tere ñu dem ci borom xam-xam boo xam ne wóor na leen ne jàng na ba xam alquran ak sunna xam na doxalinu gaañu baax ña ak nañu déggee woon alquran ak sunna ba pare ne ca yoon wa di jëfe di góorgóorlu ñu ne ah kii de moo ñu gën a xam te mi ngi góorgóorlu di jëfe li mu xam nañ dem mu xamal bu ñu xamalee ba noppi ñu ànd ak moom di jëfe mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nii la nekkee woon ak saaba yi saaba yi nga xamante ne ñoo ñëw gannaawam donnu xam-xam bi ci moom maanaam ñoo jàng xam-xam bi ci moom ci yonante alayhi salaatu wasalaam bi fi bi jógee lu def dañoo tasaaroo ci monde islam yi ku ci ne toog tabi noonu yi wër la nga naan nga naan yàlla nee na nangam ci alquran ngir nit ñi jëfe wala ñu bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ci hadith bu wér nit ñi jëfe wala ñu bàyyi bu dee ndigal la ñu jëfe bu dee tere ñu bàyyi saaba yi nii la ñu nekke woon ak seen taalibe yi nekkoon ci seen kanam ginnaaw bi fi yonent bi jógee ba ni ñu génnee adduna taabi'uuna yi jël xam-xam boobu ci saaba yi noonu lañu tooge woon ñoom imaam Malik nekk ci seen ker di jàng la tukkee fa yàlla akub yonentam ñoom ñëpp ñu ànd di jëfe waaye mbir mi foofu la yem de ki lay jàngal fii dong la yem ak yow fii ci àdduna comme ni nga xamante ne dina ñëw léegi kon kuréelu ñetteel boobu ñooñee ñoo ne ca yoon ba kon sëriñ bi nga xamante ne mooy jàngale ñuy dellu ci moom di jël ci moom diine kon mu war a mel mooy li ñu wax sànq dafa war a nekk boroom xam-xam boo xamante ne day jàng xam-xam kenn du ko donn mbokki jullit yi ak mbaax it kenn du ko donn faw nit ki muy góorgóor lu baax moo tax yàlla ba mu tuddee ñu baax ñi ne walladina amanu lu mu ca teg ne wattabaatuhum durriyatuhum bi iman alxaqna bihim durriyatahum nee na ñi nga xamante ne dañoo gëm yàlla tegu ca yoon wa di jëfe seen xam-xam seen njaboot ñëw topp leen ci ngëm googu tege ci xam-xam boobu ah bu boobaa njaboot ga dañuy fekki bàyyee ndax bàyyee lañ doon jëfe xam ko moom la njaboot gi jëfe xam ko moo tax dañ leen di fekki kon lii mooy jariñ yow mi nga xamante ne kon yaa ñëw di bàkkoo sa baay sama baay ku baax la woon yal na ko yàlla dolli mbaax waaye yow nag ndax sa baay ak mbaaxam moom la ñeel yow nooy def ba fekki sa bàyyi ci mbaax ko foofu la mbir mi ne moo tax nooy def ba xam boroom xam-xam bi la jàngal nga fexe ba li nga xam ci moom du la ko dàq jëfe foofu la rawan pagane kon xam-xam kenn du ko doon dees koy xam lu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla ne ko woon qul haadihi sabili waxal gaa ñi ne ne naa ah, lii mooy saaw yoon de ñu ne mu mel ne dañu ko mooy lan mu ne adu ila allah damay woo nit ñi jëme leen fa yàlla kon foofu la nga fay mooy doo woo nit ñi leen ci sa bopp boroom xam-xam boo toog ci kanamam mu toog di la wax boppam wala mu lay wax baayam wala mu lay wax maamam te du ne la yàlla nee na lii la bëgg ngir nga ne ca yàlla lii la bañ ngir nga won ko gannaaw dawal alkadee ngi ñëw ñu bari ci jullit ñi nag demuñu ci boroom xam-xam ci seen sëriñ bi leen di jàngal ngir mu xamal leen waaye lan dañuy doyloo ak askanoo ci moom képp mën nañoo am ak moom ay at yu bari boo leen laajoon ñaata téere la sa borom xam-xam bi sa sëriñ bii ma sa jàngal dañ naan yàcc ñaata masala la la ma sa tërëral dañ naan yàcc nga xam ne boo demee sax benn yoon la koy gis ci at mi wala ñaari yoon te bu ko gisee du ne ko mukk lii la yàlla digle lii la yàlla tere nu muy def da koy xool rek mu di ko xool wala mu tàllal ay loxoom mu ñaanal ko mu dem wala mu yëkkati alalam jox ko mbokk yi lii nekkul ne moom moo rek moo war a dox diggante boroom xam-xam ak kiy jàng ci moom diggante sëriñ ak taalibeem waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam nam doon def ak saxaaba ya wax ko ne saxaaba yi noonu lañ doon def ak ñi ñëw seen la sëriñ war a def ak taalibeem boroom xam-xam ak ki nga xam ne mooy jàng ci moom njuumte li sax fa mu gën a tàmbalee mooy léegi doomu aadama yi dañoo teqale diggante sëriñ ak boroom xam-xam wala diggante sëriñ ak imam nga xam ne sëriñ moom aw sant lay doon léegi te nit ki jàngul moom sëriñ la te kooku moom la nit ñi di gën a dellu ci moom kër ki nga xam ne jàng na ba xam lan mooy li yàlla wax ak li yonent bi wax nga xam ne léegi dañ naan sëriñ si mooy buñ nee sëriñ si am na ñuñ ca jublu buñ nee boroom xam-xam yi am na ñuñ ca jublu buñ nee imaam yi am na ñuñ ca jublu booba la njaaxum amoon ci xeetu yonent bi alayhi salaatu sëriñ mooy boroom moo war a nekk boroom xam-xam borom xam-xam moo war a nekk yilimaan ñuy roy ci moom yàlla subhanahu wa lan la wax ci ñi nga xam ne ñoo tege ca yoon wa ba ñu defee nañu def yàlla nee na booba laa leen def ay yilimaan nit ñi di roy ci ñoom ci lan ci xam-xam ak jëfe mbokki jullit yi kon loolu mooy taxawaay bi nga xamante ne moom la boroom xam-xam bi war a taxawee waaye buy jàngal nit ki diineem dafa war a tàmbalee ci yi ëpp solo li ëpp solo li nit ki di jàng nag ci borom xam-xam boobu mooy na la jàngal kan mooy yàlla mbokk yi ñun ñépp ku ci ne ci ñun am na sëriñ bu muy dellu ci moom ngir mu jàpp ci loxoom di ko jàngal diini ndax yow sëb sëriñ mi ngi lay xamal kan mooy yàlla yan melokaan la yàlla mel yoo xam ne kenn melul ne moom yan jëf mooy jëfi yàlla yi nga xamante ne kenn fekki ku ko ci ci bind gi mu bind jaam ñi ndax sa boroom xam-xam bi ngay dem ci moom mi ngi lay jàngal loolu ne la xamal ne yàlla moo bind ñëpp moo ca wéet mooy wërsëgal ñépp moo ca wéet mooy rey ñëpp moo ca wéet mooy dekkal ñëpp moo ca wéet bu ëllëgee mooy régler ñëpp moo ca wéet mooy dugal ñay dugg aljanna moo leen di dugal aljanna ci ndigalam moo ca wéet ñay dugg a naka noonu moo ca wéet moom dong lañ war a jaamu moo war a wéet ci mbooleem xeetu jaamu yàlla yi comme ni mu wéete ci jëf yooyee ndax ki lay jàngal lii la njëkk a def ci sa bopp mooy mu jàngal la laa ilaha illa allah lu muy firi muhammadun rasulullah lu muy firi ponki l'islam mooy yan ngir yi nga xamante ne mooy tax sa l'islam ñoom ndax sab sëriñ boroom xam-xam bi ngay dellu mu lay jàngal diine jàngal na la lii bu la ko jàngalee santal bu dee jàngalu la ko dawal wuti ku la ko jàngal balaa alkandee ñëw balaa dee di ñëw mbokk yi moo tax ki nga xamante ne mooy Muhammad ibnu Sirin daan wax ni diine daal xam leen ne xam-xam diine la xool leen ci kan ngeen di jëlee seen diine mooy ci kan moo lay jàngal xam-xam kon loolu nit ki da ko war a xam kan moo lay jàngal sa diine mooy kan moo lay jàngal xam-xam fanduru an man na diinakum xam leen ne xam-xam bi mooy xam-xamu alquran jàngalal alquran jàngal la wax yonentu alayhi salaatu wasalaam lii mooy diine waaye nag xoolal foo koy jëlee xoolal foo koy jëlee du ci aw sant comme ni ñu ko waxee woon xoolal foo koy jëlee ci lenn képp la mooy ku ko jàng ba xam di ko jëfee demal mu jàngal la ko bu la ko jàngalee ba noppi loolu képp la la rawee woon yéen a bokk yem nag ci mbir mi léegi fa ngeen di rawantee mooy jëfe ku dàq jëfe yaaro mbokk yi lii la nit ñi war a xam ñàkk a xam giñ ko ñàkk xam nag moo tax ay aw nit jàpp xam-xam moom am na ñoo xamante ne moom xam-xam dañ koy domm wala dañ leen koy sol déedéet loolu waxi yonent alayhi salaatu wasalaam day wuuteeg moom ndax yonent moom dafa ni xam-xam jàng dong nga koy joxe léegi nag ndax ki la wax ne xam-xam dañ ma koo sol wala dama koo donn samay baay ak samay maam moom ngay dëggal wàllis yonent alayhi salaatu wasalaam yaakaar naa ni ku ne xam nga tontu kon ay njuumtee ngi nii yoo xam ne nit ñi dañ koy juum ci buntu bii bi ci jëkk mooy nit ñi jàpp ne ki nga xamante ne moom la ñuy jëlee ci moom xam-xam benn day bokk ci famille sàngam wala mu dëkk-dëkk sàngam wala muy làkk-làkk sàngam wala mu yor der sàngam loolu moom teg ko ne yonent weddi na ko alayhi salaatu wassalaam nee na innama al ilmu bi taallum jàng dong mooy joxe xam-xam kon demal jàngi waaye demal jàngi ci ku jàng ndax boo demee jàng ci ku jàngut ak fu mu a bokk xamal ne amul xam-xam ndax yonent moo tënk xam-xam ci jàng kon demal ca ña ko jàng ñu jàngal la bu ñu la ko jàngalee ba pare ngeen ànd jëfe loolu la la rawee woon soo muy tuul sox yaa koy raw ñaareel bi nga xamante ne njuumte la loo bari loo xam ne ñu bari ci ciy bi mooy ñoo xam ne boroom xam-xam bi ñuy dellu wala seenub sëriñ dañuy toog rek di ko takk dañuy toog rek di ko tagg ak di ko màggal di ko réyal luñ am jox ko di ko liggéeyal foofu rek la ñuy yem donte du leen jàngal dara ci diine yàlla wala doonte sax xamul dara ci diine yàlla waaye comme am na fu mu bokk foo xam ne jàpp nañ ne ku fa bokk da war a nekk ku ñuy dellu ci yow ci diine doonte jàngoo loolu njuumte la moo tax ñu yem ci di ko tagg rek doonte du leen jàngal dara ñu yam ci di ko màggal rek doonte du leen jàngal dara nga xam ne bu ñu toogee moom lu toogaay ba yàgg-yàgg dañuy toog mu leen di xool ñu di ko xool wala mu leen di wax boppam wala mu leen di wax bàyyee ki moo tax am na benn sàkkukatu xam-xam boo xam ne jàngi na ba ñëw kenn ci wëllërey baayam ñëw seet si ko ci këram mu ñëw yaayam présenté ko ko ne ko kii dey sama doom la jàngi na ba ñëw mi ngi jàng sax ba léegi damaa bëgg ngeen xamante ngeen feddali wëllëre bi nga xamante ne moo doxoon diggante famille baayam ak seen famille waaja toog ak moom daan ne ko ah sama maam day moo nekkoon ak sa maam di kilifa sa maam sa baay moo nekkoon kilifa sa baay nun ñi nga xam ne ñooy doom yi nag kon ne fi ginnaawam nañ feddaliwaat kóllëre googu jàngkat ba ni ko suñu baay ak sunuy maam de wéy nañ jàpp naa ni ci ak mbaax ak xam-xam la àndoon di dimbalante ña ëpp ca ñoom xam-xam di jàngal ña ca des ñu ànd di jëfe ci sama njortu lu rafet loolu la ñu newoon waajay wax ak moom ne ko nun ñi nga xamante ne nag nooy njaboot yi maag yow ñun ñoo fi ne tey man nag la sama baay ak sama maam ànde woon ak sa baay ak sa maam muy xam-xam ak jëfe kon la laa bëgg a àndeek yow saa bopp bi ay masala yu dul jeexa ci yoo xamante ne dese naa leer dama la koo bëgg a gaaral léegi nga wubbi ma ngir ma mën a jaamu yàlla teg ko ci basira teg ko ci xam-xam bu wóor fa buhita waa ji ne yàcc ñàkk xib lii mooy lan mbokk yi lii mooy nettali mooy maanaam li waa jiy dund moom lañu ñu baree bari ci askan wi di dund ak ñi nga xamante ne ñoom lañuy ñuy jëlee ci ñoom xam-xam sa moo jiite woon sa baay sa moo jiite woon sa maam kaay ma jiite la doonte xam-xam bi nga xam ne moo lay jiital newu fa lu tax loolu njuumte lu rëy ngi nii kon lii njuumte la loo xamante ne dañ koo war a réparer moo tax am na ci menn mbooloo kenn ca ñoom benn bis dafa ñëw ni ma dañoo demoon man ak sunu mbooloo ci ña nga ka nga xamante ne mooy sunu delluwaay ci diine ma ne ko wax ba ngeen demee ñaata masala ngeen fa jëlee lan la leen digal ci lu yàlla digle ak lan la leen tere ci lu yàlla tere ak yonentam mu daan ne ah, am na daal loo xamante ne ganalee nañu ko loo xam ne dañ ko doon naan bañ koy naan wut na am na lu mu génnee lu mel ne suuf comp ca defal ñu ku ne ci sab kaas nga naan ma ne ko lii dong ngeen fa jële mu ne lii dong lañ fa jële ma ne ko kañ ngeen fay dellooti mu ne ba déwén ma ni ko maa ngi lay jaale sa bopp yow ak ña nga àndaloon bu fekkente ne nii ngay jële sa diine ci nit bu boobaa yow kenn xamul sa yoon wii nga fital di dem fan ngay àkki loolu mooy lan mooy ñu baree bari ci nit ñi yoon wii lañu jaaree ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jële ci ñoom diine kon bokki jullit yi bokk na ci njuumte yi nga xamante ne it ñu baree bari danañ ko juum mooy ëppal gu ñuy ëppal ci ñi nga xamante ne dañuy dellu ci ñoom ne dañuy jël ci ñoom diine yi sa moroomu nit lu mu am am xam-xam ak askan wu mën a bokk donte sëb sëriñ la bi nga xam ne ci moom ngay jële diine moom moo lay jàngal diine waroo ëppal ci moom sa diggante ak moom mooy da nga ko war a wormaal jël ci moom xam-xam bi mu lay jox ngeen ànd di ko jëfe lii képp la waaye nag waroo ëppal ci moom bokk na ci xeeti ëppal yi mooy am na ñoo xamante ne dañ naan ah, man kët sama delluwaay ci diine ku topp ci gannaawam julli sa yaram araam na sa war wala ku ko teg bët sa yaram araam na sawara lii ak ëppal la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii xam ko xam ne ak ëppal la akuk réer la jëlul njàng mu sori yonent nga xam ne mooy yilimaani mboolem ñi ragal ndax mas naa wax ne moom ku ko teg bët na sawara yonent bi musu koo wax kenn musu ko koo waxal it ndax mas naa wax ne ku topp ci sama gannaaw julli sa yaram araam na sawara wala da ngay dugg aljanna musu koo wax te it kenn musu ko ko waxal waaw wan fit la nit di am ba saxalal moroomu nitam loo xam ne yàlla saxalulu ko yonent bi yonent bi saxalulu ko boppam saxaaba yi saxaluluñ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu bàyyi leen ci wan fit la nit am ba egg foofu kon nga gis ne am na ñoo xam ne toog di tagg seen sëriñ ak di ko yëkkati ba sax yëkkati ko foo xam ne yegg na fa ko yàlla yamale loolu mooy relation bi dox seen diggante ak seen kilifa loolu mbokk yi njuumte la l'islam du ko nangu ndax bu ko l'islam doon nangu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam lay tàmbalee kon loolu lu mat a bàyyi xel la bokk na ci njuumte yi itam yi nga xamante ne moom la ñuy mujje mooy nga jël ki nga xamante ne moom nga wax ne moom ngay dellu ci diine nga wékk nga ni ko wékk naa la sama mbiri àdduna ak sama mbiri àllaaxira mbokk yi kan ci saxaaba yi moo mas wax lii yonent bi alayhi salaatu wasalaam jëlul njàng mu sori kan moo mas a ñëw ci yonent bi ne ko man daal sama mbir yépp wékk naa la ko àdduna ak àllaaxira adduna bii de boo ko ko wekkee yow ci sa jëmmi bopp yaay njëkk a tële xam ne yorul sa mbiri àdduna te adduna bi nag fi la ki nga wékk say mbir ci moom ëppee pexe fi la ëppee pexe ka àllaaxira te adduna bi booy xiif du ko yëg booy feebar du ko yëg booy dee dañ ko yëgal kon sa mbiri adduna yi nga xamante ne moom la moom moom ci la ëpp ay pexe mënu ko xamu ko peegu ko lu tax nga di ko jox sa bopp kon àdduna waxuma la nag allaaxira ba nga xam ne yàlla nee na wal amru yawma idin lillah mbir yépp yàllaa ko yor bu ëllëgee yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an bakkat du mënal morom ja foofa dara kon sëb bi nga xam ne ci moom ngay jël diine mooy boroom xam bi lay jàngal diine contrat bi dox seen diggante fii la yem ci àdduna te la yem ci àdduna ci lan mooy mu xamal la lim la njëkk a xam ci alquran ak sunna fii la mbir mi waree bu ko weesoo rek yaa ngay fent yoonu réer bu la déggee ne foofa dana ko weesu ma nga lay nax te da nga rëccu ci waxtu woo xamante ne dana fekk jëf wees moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ñi daan ñëw ci moom ak moom ci boppam taxawaay bii la amoon benn bis benn waaye dafa ñëw ci moom waa ji lu ko wax néewu ko jox naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira de dani ko dullani ala de yudxiluni aljanna damaa bëgg nga tegtal ma yoon woo xam ne bu ma ci jaaree dem aljanna nii nga war a mel ak ki nga xamante ne mooy boroom xam-xam ne yonent bi lu mu ko tontu yonent bi néew ko kaay toog di ma liggéeyal subaab ngoon bu dégg ko ca loo am jox ma déedéet dani ko dangay ngay jaamu yàlla te doo ko boole kenn xoolal lii da jaamu yàlla te doo ko boole kenn ponki lislaam ak yeneen xeetu jaamu yàlla yi mu ne ko nga taxawal julli juróom joxe azaka boo ko mënee woor weeru koor lu ko waa ji tontu waa ji waa ji kon moom da doon jël si xam-xam yonent bi jox na ko xam-xam bi ngir mu dem jëfe ji waa ji daan ne ko na la wóor ne lii de du ci yokk du ma ci wàññi ne wëriñ wan yonent bi gannaaw yonent bi ne ku bëgg a gis waaye aljanna na xool waajee mbokk yi kon kay lii nekkul lu compliqué yonent bi foofu ci lu gàtt daf ñoo jàngal sëriñ ak taalibi nan la war a mel mooy bu ñëwee tegtal ko yoonu mbaam mu tege ca loolu après nag amatu leen affaire da ngay jëfe muy jëfe ku dàq jëfe yaay raw ak noo mën a mel ak noo mën a sant kon mbokki jullit yi loolu lu mat a bàyyi xel la moo tax rabiat ibnu kaab al aslami radiallahu taala anhu nee na dama daan bi jàppu kaayam di ko dimbali fanaan këram benn bis yonent bi alayhi salatu wasalaam daan ñëw daan ko laajal lan nga soxla lan mooy sa aajo rabia ne ko mbokk yi xool leen bu doon kenn la ci ñun tey lu ne dana ko laaj te li muy laaj lépp li ci ëpp ci ñun bu doon ñu na illa man rahimallah mbiri àdduna lay doon rabia ne ko man de damaa bëgg a ànd ak yow ca aljanna allahu akbar yi tëju rëy yonent bi alayhi salatu loolu ah li nga laaj rëy na de neexu la am de laajoo leneen lu dul loolu mu ne ko lii képp laay laaj waaye xool leen li ko yonent bi tontu ak li mu ciy déggee yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ne ko fa ainni ala nafsika bi kathrati sujud ne ko dimbali ma ci sa bopp ngay bari looy julli maanaam ngay bari looy sujud bi maanaa ci julli ngay bari looy julli lu tax loolu ku mel ne al mudhiri bi nga xamante ne mi ngi firi waxi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ji lu mu wax dafa ni nag ma dimbali ci sa bopp nga defar sa bakkan nga defar sa bopp ba tege ca yoon wa waaye na laabal sa bakkan ba mu yeyoo li nga xamante ne moom ngay sàkku ci sax ci lu baax seex lu bon man de danaa ñaan yàlla ngir mu defar sa bakkan ba nga mën a am loolu waaye nag danaa ñaan yàlla yitam mu defar sa bakkan ba xiir la ci ngay bari looy julli di jaamu yàlla ndax mooy tax nga am li nga bëgg nii foofu mbokk yi loo fay déggee yonent bi da koo teg ci yoon wi tax muy am loolu ndax xam na ni li ko waa ji laaj nekkul ci loxoom alayhi salaatu wasalaam bu fekkente ne yonent bi dugg aljanna nekkul ci loxoom waaye sababu lii tax a dugg aljanna tegtal ko nit ñi mu sax ca moo ne ci loxoom alayhi salaatu wasalaam mu teg ko ca yoon woowee fa maa baalu ko ci keneen kon képp keneen ku lay garantil aljanna fii ne la danaa la ko jox bu ëllëgee da la koo bëgg a xañ saxaaba yi kan moo ci mas a garantil kenn aljanna ci taabi'un yi te ñoo gën ci xeet wi ginnaaw ci yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam kon mbokk yi nun ñépp nañu bokk ànd di sàkku xam-xam di ko jële fañ ko war a jële ci kilifa yi nga xamante ne ñoo sàkku xam-xam ba añ ba am xam-xam moo xam askan wuñ mën a bokk moo xam réew muñ mën a ne moo xam der buñ mën a yor moo xam dañoo ñàkk moo xam dañoo am lii mooy tax a xam jëfe ko mooy tax a texe fii ak fële yàlla ñu ko yàlla boole defal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 ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا واسعا مع الصحة والعافية وحسن الختام اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم الله